borom bi subhaanahu wa taala du ko jàppee jaam bi ndaxte ngëneelam la moo ko waaye nag jaam bi war naa góorgóorlu ba bokk ci coobare borom boobu xam xam moom du niroog réeree abadan daa iman boo xamee di jëfe la nga xamee këpp ku melul ni yow yaa ko gën yëg nga ko wala yëgoo ko nag ndaxte yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne lenn rek ci ngëneelu borom xam-xam hatta xiitaanu fil bahri yusabbihu lahu njanaaw yi ci biir géej gi sax di ko digle di ko jëfee am maa nag bu ko xamee te jëfewu ko nag mooy ki ñuy njëkk a bugal bés tey ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ki ñuy njëkk a bugal bés tey ci mooy borom xam-xam ya niñ leen di bugalee mooy li nekk ci biir bi la ñuy jël yeew ko ci benn daaj wërale ko safara moom itam muy wër ñamu doon waar di ko wër di ko laaj naan musiba bi moom lu la ko yóbbee mu ne kuntu amurukum bil maarufi wala aati wa anhaakum anil munkari wa aati mu ne li ma ko yóbbee mooy lenn dama leen doon digal njekk te duma ko def di leen tere lu bon di ko def kon xam-xam bi nga xam ne mooy musal mooy bi nga xam ne dañ koy jëfee teg ko ci sellal waaye dañu góorgóorlu nag bokk ci ña nga xam ne dañuy xam dal nañu ko borom bi subhanahu wa taala yombalal kon muallif bi rahimahullah mu ne i'lam rahimaka allah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin taallumu thalaasi هذه المسائل والأمل بهن من اعلم رحمك الله day tàmbalee ci ni borom bi subhanahu wa taala tàmbalee woon faalam annahu la ilah moom itam mu ne la ilam xamal yow ki yore téere bii di ko jàng na nga xam rahimaka allah maa ngi lay ñaanal yàlla na la yàlla yërëm ba dëppale la la nga xam ne moo gën te moo nekk dëgg annahu na nga xam ne yajibu ala kulli muslimin wa muslim war na ci bépp jullit bu góor ak bu jigéen lan moo leen war ñu jàng ñeenti ñetti masala ñu fexe yittewoo ñetti masala ñu jëfee masala yooyu ñoom ci seen bopp ñu yittewoo ñetti masala gannaaw bañ ko yittewoo ba xam ko ñu dal di ko jëfee yittewoo bi mooy lan maarifatuhunna wa atiqaadu maanihinna wal amalu bi madlulihinna ñett yooyu nga bàyyi ci xel mooy nga xam maani yi nga dal di gëm maani yooyu nga dal di jëfee la maani yi di wone bu dee ab ndigal lan la digal di wone mooy jëfee bu dee ab tere lan la tere di wone mooy bàyyi bu dee ab soññ lan lañ ciy déggee mooy góorgóorlu bu dee ab daganal lan lañ ciy déggee ku bëgg def ku bëggul bàyyi kon loolu mooy maani yi mu ne nit bu ci bàyyee xel dal di ko jëfee mu ne ndax te jëf ci boppam mooy meññitub xam-xam xam naa te du ma jëfee kon xam-xam ba meññul kon foog ba mu xamee ba pare jëfee xam-xam boobu dal di meññi mu ne ñetti masala yim lay junjal al uula bi ci njëkk da nga xam ne dañ koy xam mooy lan anna allaha xalaqana wa razaqana walam yatrukna hamala bal arsala ilayna rasulan faman ataahu daxala aljanna wa man asaahu daxala annaar mu ne lii mooy masala bu njëkk bi mooy lan nga xam ne yàllaa ñu sàkk te moo ñuy wërsëgal mooy nit ki ci boppam wóor ko ne yàlla moo ko sàkk te mu wóor ko ne yàllaa koy wërsëgal kon buy ñaan wërsëg ku mu koy ñaan allah bu demee ba jot wërsëg boobu ku muy sant allah moo xam ñam bu muy lekk la balaa muy tàmbale day wax bismillah bu jëfandikoo ba pare day wax alhamdulillahi rabbil alamin moo xam ab yéere bu ñuy bu muy sol la li muy tàmbalee mooy alhamdulillah alladi kasaani hada sawba min gayri hawlin minni wala quwa maa ngi sant yàlla bi ma baaxee yéere bii te nekkul sama góorgóorlu nekkul sama yitte waaye mbaaxaayu borom bi subhanahu wa taala kon kooku nangu na ne borom bi subhanahu wa taala mooy wërsëgal mu ne mooy masala bu njëkk loolu foog nit xam ko ne yàlla moo ko sàkk te moo koy wërsëgal te gannaaw bam ko sàkke itam bàyyiwu ko neen déedéet sàkku ko rek teg ko ci suuf mu ne ko lu la toog defal wala demal wala sàkku ko rek bàyyi ko moom yoonam nekkatul ci moom mu ne déedéet te koo sàkk ba pare di ko surveillé daa iman mu ngi koy nemmeeku loolu moo tax mu ne bal nga xam ne nag lii mbir gannaaw bam ko sàccee te neenalu ko maanaam boyalu ko xamalan mooy boyal mooy sàkk dara rek bàyyi ko mu dem li ngay xew rek yeew yi say gàtt dàq leen ñu dem kon boyal nga leen wuutaloo leen nañu yem fii wala nañu dem fale wala nañu def lee déedéet waaye boo xëyee ba pare jël gàtt boobu wuutal ko buum bu gudd li ñuy tuddee saanu waa waa Dakar duñ ko xam mooy boo génnee sa fas da ngay wut buum bu gudd dal di ko yeewu day lekk ba buum boobu fi mu mun a yem day delluwaat kon foofu rek laay wër daaj boobu du dem kon kooku mooy bàyyiwuloo gàtt boobu boyaluloo ko waaye limiteelu nga ko fi mu war a yem maanaam guddaayu buum boobu loolu mooy walam yatruk hamalan bàyyiwuñ doomu aadama hakaza bu ñu ñëwee ci tegtal alquran dinañ ci gis yu leer mu ne waaya nag arsala ilayna rasula dafa yónni ci ñun ab yonent yonent bi ñu dajel ñun nag mooy muhammadun sallallahu alayhi wa sallam yàlla baaxee waat ñu beneen baaxee muy xaatamul anbiya wa rusul muy ki nga xam ne moo mottuli yonent yi mooy kan mooy ki nga xam ne itam afdalu xalqillah mooy ki gën ci ñi borom bi subhanahu wa taala amal mu baaxee ñu itam mooy ka nga xam ne duñu alak ab xeetam ci adduna dañ leen di yiixee ba lii nga xam ne mooy bés bi mu baaxee wat ñu itam ñun ñooy seede yeneen xeet yi bépp yonent sallallahu alayhi wa sallam mooy nekk seedeen bépp xeet xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy nekk seeni seede waaw loolu nag ku nekk war naa laaj boppam ndax mat naa seede ah loolu ñuy seetaan la ndax mat naa seede salafu saaleh de ñoom ci ab seede dañ ci doon xool mbir yu sew yoo xam ne ñun duñ ci bàyyi xel sax mbir yu sew lañ doon seet yoo xam ne duñ ci bàyyi xel ndaxte ñoom dañ doon jàpp ne képp koo xam ne mos naa fen rek matatul seede képp koo xam ne teg nañ ko benn sanction mooy bu duma ci islam rek matatul seede lu dul dafa tuub képp koo xam ne def na bàkkaar bu mag matatul seede képp koo xam ne day wat sikkiña muy góor matatul seede ñoom dañ doon jàpp ñu sew yoo xam ne ñun dañuy yaakaar ñu sew la waaye diina islam yi de am nuñ koy jàppee ndaxte képp koo xam ne mutalabbisun bi ma'siyatin fa huwa fasiqun an fasiqu la yashhad képp koo xam ne dafa sax ci ñaaw képp moo xam bu tuuti la moo xam bu mag la maanaam zalika ku génn topp la te ku génn topp matul seede al mutaxallifu an salaatil jamaa la yashhadu ala ghayrihi képp koo xam ne itam day toog du fekkee julli mbooloo te tey ko dara jotu ko kooku itam matul matul témoin matul seede kon lii tax nit ki ñàkk seede lu baree bari la tuumal sa mbokk julli ci njaalo sax ñu ne ko borom matatul seede tuumal sa mbokk julli alladina yarmuuna al muhsanaat kooku borom bi subhana wa taala ne kooku itam matatul seede ndaxte ku génn topp la kon mbir yu baree bari ñoom dañ doon jàpp ne matul seede ñun nag tey ñu jàpp ne mbir bu woyof la te yow bul boole sa bopp nag kon bokk nga ci ña nga xam ne sell nañ ngay seede waaye yow ci sa bopp des na kon loolu moo tax mu ne dafa tànn ab yonent jëmale ñu ko mu ne ñu nag faman ataahu daxala képp ku ko topp rek dina dugg aljanna wa man ataahu daxala naar képp ku wuuteeg moom rek dugg moo taxoon yonent bi dal di ko leeral mu ne kullun yadxulul jannata illa man aba qiila wa man yaaba ya rasulallah qaala man ataani daxala aljanna wa man ataani faqad aba mu ne ñéppay dugg aljanna lu dul ku bañ sahaaba yi ne yonent bi moo waay kuy bañ a dugg aljanna mu ne képp ku ma topp déggal ma rek dangay dugg aljanna waaye képp ku ma mooy yaa bañ borom bi subhanahu wa taala nee na ne mu ngi nii su ngeen ko toppee ngeen dal di dugg aljanna ndaxte da ngeen nekk ñu gëm fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma sajara baynahum borom bi mu ne maa ngi gën ne kenn ci yéen duma nangu ab ngëmam lu dul mu tànn yonent bi muy arbitam muy xew ci seen diggante fokk rek du tànn naa ko rek nag déedéet li muy atte itam bokk li nga xam ne moo la neex ci sa xol doo ci am diis diis doo ci am tiis tiis doo ci am jafe-jafe dangay tànn ne lii dëgg dëgg li yonent bi atte mooy dëgg moo ma neex moo baax nga dal di ci jaar waaye su fekkee ne dina atte nga am ci ab tiis oh lii de moom dafa jafe lii moom ñii ñoom ñii dañuy teengal ñii nangam ak nangam bu dee loolu déedéet kon mu ne képp koo xam ne topp na yonent boobu rek sa aljanna taxaw na moo tax borom bi subhanahu wa taala moom ci boppam dëgëral wax jooju mu ne ñu wa man yuti illaha wa rasulahu yudxilhu jannatin tajri min tahtiha al anhaaru xaalidina fiha wa dhalika al fawzu al azim borom bi ne képp ku ma topp maag sama yonent danaa ko dugal ci ay aljanna yoo xam ne ay seew léegi daw caroon nga te foofu la ñuy sax te ñii day ak jëf jii day mooy ab mucc boo xam ne bu fës la bu mag la bu yaatu la nga xam ne texewadi dootul ñëw ci moom abadan borom bi subhanahu wa taala waxat feneen ne wa man yuti illaha wa rasulahu wa yaxsha allaha wa yattaqihi fa ulaika humul faidun borom bi ne képp ku déggal borom bi subhanahu wa taala akub yonentam fu mu tudd boppam rek boole ci yonent képp ku déggal borom bi akub yonentam te moom ci boppam ragal na borom bi moytu ko mu ne ñii doom ñooy sama kon nag yoonu texe mooy topp yonent yoonu texe wa bi mooy safaanoog yonent yaa xam nag la tax nga safaanoo ak moom yaa xam la tax nga safaanoo ak moom safaanoo ak moom mun na nekk benn ci ñaar yi benn bi réeree ko te buggoo ku la gindi kon itam doo texe ñaareel bi mooy sib ko sib bi nag moom itam am na ay façon imma mbër ma nga tànn mu nekk sa leader moom demeewul ni nga ne gannaaw nag sama waa ji moom demeewu ni ah kon man sama waa ji laay àndal kon loolu itam yow yaa ko tey gannaaw sa waay jooju nga tànn moom tànn yoonu yonent bi te gannaaw safaanoona ak yonent bi yonent bi ngay bàyyi topp ko moom kuloo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon jafe-jafe yooyu ngay dal di am masala boobu nag mun nañ koo leeral ci benn mbir boo xam ne jafe-jafe bi ci la gën a aju te borom xam-xam yi léeg-léeg di ci leeral ay mbir yoo xam ne léeg-léeg mu yomba dégg léeg-léeg mu jafe dégg mooy alxabdu fi salaa mooy koy xam ne buy julli day jël nday jooram teg ko ci càmmooñam teg ko ci dënn bi sax na ne yonent bi loolu la doon def te borom xam-xam yi dëppoo nañ ne ku ko bàyyi julli ba yàquwul waaye léegi beneen masala moo ciy duggee yow ki ko bàyyi lu tax nga bàyyi ko loolu tontu bi benn ci ñaar yi lay war a doon benn bi mooy jaxlan dafa daf koo réeree waaw ba nga ko réeree lu tax laajo lu tax fexewuloo ba gëstu ba xam sa diine ne salawatullahi wa salaamu noonu la doon julle kon yow sa diine suxalu la kon bàyyi bi nga ko bàyyi doonte julli bi wér na du la jëriñ bés tey ndax dinañ la laaj yonent bi moom lu leer la defoon lan la ñu waxoon sallu kama raaytumuni usalli jullee leen ni ngeen gis may jullee te keroog ba mu leeralee hadis boobu ci bésu ajjuma la woon ba mu xutbaa ba pare ñu liqaamal ko mu yéeg ca kaw mimbar ba kàppar taxaw fa julli jàng ak fatiham jàng ak saaram dal di ba mu des lii nga xam ne mooy ruku mu dellu gannaaw ruku sujuud dal di jogaat yéegaat minbar bi ba mu paree mu ne xam ngeen li tax ma def lii ngir ñëpp gis sallu kama raaytumuni usalli jullee leen li ngeen ma gis naay jullee kon li tax mu yéeg ca kaw minbar mooy ci jege gis ci sori gis ñu dal di ko gisandoo kon moom noonu la jàngale woon kon yow lan moo tax yittewoo sa diine ba xam salawatullahi wa salaamu ni mu jàngale woon mooy benn ñaareel ba déedéet yow dañ koo bañ yow ke yéefér nga képp ku bañ lu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam indi anta kaafir bi ittifaaqil ulama ñëpp ñoo d'accord ne yow yéefér nga kon yéefér boobu di julli julleen yoonam nekk ci ndaxte borom bi subhanahu wa taala def ñu waxoon ne képp ku jëf lu baax min zakarin aw unsa wa huwa mu'min moo xam ka jëf góor la wala jigéen la waaye sart ba mooy wa huwa mu'min fekk bam koy jëf gëm na te ku weddi ku bañ lu yonent bi indi lay gëmuloo ko boo ko gëmoon la mu indi doo ko bañ kon ñaari masala yi foo ci xool rek am musiba ngay dal di gis waaye gis nañ ne léegi am na ñoo xam ne munagul dugg ci seen i bopp waaye li leen tere muy dugg seen bopp nag du dara de sasam la ak parpar loo dam la du dara amul lenn lu ci teg te yonent bi daa waxoon ne da'uha fa innaha muntina sànni leen ko sot sotloo ak parparloo lu xesew xunn la sànni leen ko luy lor jaam bi la bàyyi leen ko wa ma kaana muhammadun aba ahdin min rijalikum yonent bi daal du baayu kenn ci yéen du maamu kenn ci yéen walakin rasulallah waaye nag ak yonent bi yàlla la gannaaw am nga mbër booy askanalee sa bopp nag loolu mooy indi jafe-jafe yi kon sot sotloo ak parparloo ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lu xesew la yow lu xesew loolu nga téye loolu dong moo tax nga bàyyi masala boo xam ne bu leer naññ la kon loolu jaam bu nekk war naa laajaat boppam lu tax ma bañ ko bu dee réer la bokkuloo ci ñay ca ndaxte sa diine suxalu la mais bu la suxaloon kay foog nga gëstu naka la yonent bi jullee woon foog nga gëstu ko mu jaral la bu dee ab bañ ko la nag kon yow yonent bi nga bañ kon yow itam ñaari yëpp amul benn boo xam ne mooy yoonu pexe moo tax mu ne ñu nañu bàyyi xel nag yonent boobu ku ko topp day pexe nga waaye ku wuuteeg moom day texe wa di nga koo mun a roy ci aduna ndaxte moom dong nag la setti woon tey mu ne ñu wa in tutiuhu kii daal su ngeen ko toppee ngeen daal di jub lépp luy tax ñu sib doomu aadama rek yàlla ne ñu seedeel naa le ne nekkul ci moom lépp luy tax ñu sib doomu aadama mu ne seedeel naa le muhammadun sallallahu alayhi wa sallam nii nekku ci moom man yàlla maa leen ko garanti mu njëkkee ñu ci lan ci jikko ndaxte jikko asqalu maa yuudau fi miisaan bokk na ci jëf yi gën a diis bés penc ci nit ñu koy peeseel jaam bi mu dal di ñu wax lan wa innaka la ala xuluqin azim ne ko yow sa jikko mat na yow sa jikko lu rëy la yow sa jikko lu rafet la leneen li ci des mooy lan mooy ndax dangay xool lu xaraam loolu itam ab wàññent la koo xam ne day dem di xool lu xaraam di bëggee lu xaraam dëgg dëgg kooku itam dina fekk jikko ba des na borom bi subhanahu wa taala ne ñu lan ma zaaga al basaru wa ma taxa moom ay botam dewuñu da di seet li borom bi subhanahu wa taala tere leneen li ci des mooy xol bi mu ne ñu ma kazaba al fuaadu ma raa moom xolam wuutewul ak li ko borom bi subhanahu wa taala wax ci loolu dong lay jaar lan moo ciy desati mooy làmmiñ bi est li muy wax dëgg la borom bi mu ne ñu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha moom day du wax caaxaan du wax bëgg-bëgg boppam lu mu wax man nii maa ko ko wax loo ba yii yépp paree nag mu dal di ñu wax lan ne ah mu dal di ñu ne laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana mu ne am ngeen roy waay bu rafet nag bu ngóob roy leen ku roy exe ku bañ hakaza kan keneen la ñu jox valeur ni amul moo taxoon borom bi ne wa in tuti aksara man fil ardi moytul de li gën a bëri ci doomu aadama ci kaw suuf boo leen toppee ñu jënd ñu réeral mu ne ñu boo toppee yonent bi dal di jub kon hakaza ku jub mooy jëm ci moom safaan ba mooy jubadi jub mooy jub subhanahu wa taala inna arsalna ilaykum rasulan shahidan alaykum kama arsalna ila fir'auna rasulan fa aba fir'aunu rasula fa axadnaahu axzan wabila mu ne maa ngi ko teg ci waxu borom bi subhanahu wa taala fi ñu waxoon ne man day tànn naa ab yonent yónni ko ci yéen te yonent boobu moo leen di seede bés penc yonent boobu moo leen di seede bés penc seede waale ci yeneen yonent yi yéen itam ngeen seede ci yeneen xeet yi ni ma yónnee woon ab yonent jëmale ko ci Firawna nekk Muusa moom leer na borom bi leeral nañu ne yónni na Muusa jëmale ko ci Firawna Firawna lànk moo tax mu ne ñu Firawna moomu moom dal di lànk fa ata Firawnu rasula Firawnu dal di lànk ne du topp yonent boobu fa axadnaahu axzan wabila ma dal di ko téye téye bu dëgër a dëgër ma dal di ko alak dal di ko rusloo te bépp penc itam ku lànk bu ma koy dundal bu ma koy dekkal dama koy dekkal ak boole ko ak ñalang boole ko firawna boole ko haamaana boole ko qaaruna boole ko ubay ibnu xalaf kon mu xam ne musiba dal na ko ndaxte ñooñooy ñil kàngama yi lànkoon kon ma boole ko ñooñu amma ci nangu itam dama koy boole ñi nga xam ne nangu woon na ma boole ko ci ñi nga xam ne lu mel ni imraatu firawn ma boole ko ci ñi nga xam ne ñooy abubakar ak umar ak usman ndaxte ñoom itam ñooy kàngama yi nga xam ne nangu woon nañu wa kadalik kon loolu moo tax borom bi subhanahu wa taala waxaat ñu feneen ne doomu aadama dafa yaakaar ne dama koo sàkk rek boyal ko ah ayahsabu l insanu an yutraka sudan danga foog ne dama laa sàkk rek boyal subhanahu wa taala ne déedéet de defuma loolu de ba ma la sàkkee am na lu ma la sant am na lu ma la tere te noppiwuma jël naa ab yonent jëmale ko ci yow te noppiwuma mais def naa noir sur blanc te ma assuré ko kenn munu koo yokk kenn munu koo wàññi te fii lay def de def lu leer la bàyyiwuñu la hakaza ndaxte alquran baa ngi ci kenn manu ci dara amul kenn ku mun ci quran dara assurance yooyu yëpp borom subhanahu wa taala mu ne def naa ko ngir ma teral ki yeeyoo teraanga waaye ma bugal itam ki yeeyoo bugal dal nañu borom subhanahu wa taala baaxee ñu bokk te ña nga xam ne dañu yeeyoo ab teraanga yeeyoo teraanga nag mooy dégg topp mooy li nga xam ne ñu baax ne loolu la ñu waxoon sami'na wa ataana dégg nañu te nangu nañu topp nañu li nga wax moom la ñuy jëf borom bi moytulooñu safaan ba mooy jëfu yahud lan la ñu waxoon ñoom seeni yonent samina wa atayna dégg nañu waaye ñoo lànk kon moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yéen ñii sama xeet ñii la tattabi'unna sanana man qablakum حسو القزة بالقزة ولو دخلوا جهر دب لدخلتموه qaalu alyahudu wannasara qaala faman mu ne yéen ñii sama xeet bii ci mujjantalu jamono da ngeen di roy ñeneen ci xasab ak xasab lu ñu def ngeen def lu ñu wax ngeen wax ko bu ñu duggoon ci faxu mbëtt sax ngeen dugg fa fekk leen saaba yi ne waaw ñooñu ñuy roy ñan la ñuy doon alyahud ak nasara mu ne bu duwul ak yahud ak nasara ñan lay doon bu nekkul yahud ak nasara ñan lay doon nañu laajaat suñu bopp ni ñuy roy léegi ci lu ne ñan lañ al yahud wa nasara kon li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon day dal di yëg wonte borom bi subhanahu wa taala loolu la ñu tere woon kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax kon mu allif bi mu ne loolu mooy masala bu njëkk bi nga xam ne war nañu ci bàyyi xel ñu dal di ko jëfee mooy yëg ne yàllaay aji sàkk ji yëg ne yàlla mooy wërsëgal yëg ne borom boobu bàyyiwuñu neen waaye yebal nañu ab yonent ku ko déggal tabbi aljanna ku wuteeg moom tabbi safara mooy masala bu njëkk bi te jox nañu ci ay tegtal yu leer mu ne masala ñaareel yi nga xam ne itam dañ koo war a xam mooy ann allaha la yarda an yusraka ma'ahu ahdun fi ibadatihi la malakun muqarrabun wala nabiyun mursal mu ne nga yëg ne yàlla bëggul kuy bokkaale ak moom ak kenn ak lenn yàlla moom bëggul bokkaale kooko mun a booleel na mu ne moo xam ab jaam nga ko booleel yàlla bëggul moo xam ab malaaka bi aji jege ñaale nga ko booleel masalan mel ni ku doon jaamu jibril mu ne yàlla bëggul mu ne moo xam ab yonent bu mu tànn la yónni ko mu ne yàlla bëggul ci lu nekk nag yàlla joxe na ci misaal ci ñu doon jaamu ay malaaka borom bi subhanahu wa taala mu ne ma bugal leen ci ñi doon jaamu ay yonent borom bi subhanahu wa taala mu ne ma bugal leen lu mel ni Uzayr lu mel ni Isa bun Maryam mu ne képp ku leen jaamu woon mu ne dama leen di mbugal lu mel ni itam ñu doon jaamu ay jaam ñoo xam ne du ñu malaaka du ñu yonent borom bi subhanahu wa taala mu ne ma bugal leen mu ne daal moom li mu nangu mooy ñu jaamu ko moom dong inna allaha la yaghfiru an yusraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha mu ne ku dundu be deewee bokkaale borom subhanahu wa taala mu ne duma la jéggal koo mun a jaar moom bugal rek jéggal moom duma la ko jox maa lànk waaye lépp lu dul loolu nag li jaam bi mun a def ci aduna bu ñëwee mu ne bu ma soobee ma jéggal moo xam dafa rey moo xam dafa sàcc moo xam dafa njaalo moo xam dafa fen moo xam dafa lekk riba lu mu mun a def daal waaye bokkaale moom mosu cee jaar mu ne wala boobu ba muy dee booba tuuboon na bépp bokkaale bu mu mus a def borom bi subhanahu wa taala mu ne bu ñëwee rek bu ma soobee ma ne ko jéggal naa dem naa jéggal naa la moo tax mu wax ñu ci xadisul qudsi ne mu ne képp koo xam ne faatu na waaye ba mu ñëwee li mu indi ci ay bàkkaar feesal na suuf si yëpp mu ngi mel ni suuf si yëpp indi na ko ba mu fees dell ak bàkkaar waaye ba ñu vérifié ñu gis ne bàkkaar boobu yëpp bàkkaaru bokkaale nekk ci mu ne borom bi subhanahu wa taala mu ne ma jox ko lu toll ni suuf si ba mu fees ci ay yiw mooy dal dina fomp lépp loo xam ne moo doon ay bàkkaar mu ne ma dal di ko jéggal mu dal di tabbi aljanna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne dem na sax ci ku faatu ku faatu rek mu ne ñi ko doon jullee am ci ñeen fukki nit ñoo xam ne duñu bokkaale mu ne ma yërëm ci faatu ñeen fukki nit rek fekkee ku faatu ñu jullee ko ñaan borom bi subhanahu wa taala mu ne man ñeen fukki ñu doon bokkaale duñ ma ñaan mukk ma bañ abadan mu ne may naa leen li ngeen wax yërëm naa ko jéggal naa ko lu dul nag mu deewee ci bokkaale bu dee ci bokkaale moom yàlla mu ne moom moo lànk moom moom bokkaale moom ku ci dee mu ne moom moom du jéggale moo taxoon borom bi subhanahu wa taala mu ne innahu man yushrik billah faqad harrama allahu alayhi aljannata mu ne na ngeen yëg ne ku bokkaale rek aljanna xaram na ci yow ndaxte bokkaale lan moo waral mu mel noonu lépp li nga mos a jëf bépp nga bokkaale boo bokkaale rek yàlla ne màbb na dara amatoo ko ci yiw yépp màbb na nga nekkaat ku neen nit nag dana jëf ay jëf ñu bindal ko ay yoon mu dem njaalo ji dañ koy bindal bàkkaaru njaalo na waaye yiw ba des na fa yiw ba ci boppam des na mu def yiw dem sàcc ñu bindal ko bàkkaaru ne ah diw dee sàcc na bàkkaar baa nga fa mais yool ba mu jot a dajale moom mu nga fa waaye nag def na ab yool ba mu bari mu bokkaale rek borom bi subhanahu wa taala mu ne wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansura mu ne boo defee bokkaale rek borom bi ne malaaka yi neenal leen jëf ca ñu dal di effacé ñu ne zéro yi ba mu dundee tey deful dara ci yiw ay bàkkaar dong la def ndaxte borom bi subhanahu wa taala mu ne man bokkaale moom déedéet loolu moom bëgguma ndaxte fi ma toll ak nama mel weesu na ñu may jox ndende weesu naa loolu li ma def ak ñi ma mel mbaar mi nga xam ne dama ne ko ne kun rek mu dal di aji yow booy kuule naka ngay def coono bi ngay daj ci lu ne ak pied yeeg poto yeeg ak gas baag weñ baag fer baag ciment baag yooyu yëpp coono boobu man nga xam ne dama ne kun fa yakun rek mu dal di yem nga bëggumaa yemale kooku ah subhanahu wa taala mu ne loolu moom munuma ko loolu munuma koo toléré loolu moom munuma koo muñ moom ndaxte yemumaag moom moo taxoon borom bi subhanahu wa taala mu ne bés penki day am na coono bu mag bu nekk sama diggante ak doomu aadama ak jinne mu ngi mel ni dañu ne borom bi subhanahu wa taala lu ko waral mu ne ko ñaari mbir dong moo ko waral la ana alladi xalaqtu wa ubida gayri wa ana alladi razaqtu wa shukira gayri loolu naqari na ma de naqari boo xam ne naqar amul fu mu yem ma sàkk jaam bi defal ko lu ne ay membre am mat wërsëgal ko jox ko xel jox ko lu ne bàyyi ko muy dox ci kaw suuf ma sàmm ko aar ko def lu ne mu bàyyi ma ci jaamu ji keneen loolu naqari na ma kon du ma ko jéggal mukk maa ngi ko xaar mu ne ñaareel bi ma defal ko loolu yépp baaxe ko mu mel ni ne ma may ko am am mu lekk ba suur bàyyi ma foofu sant keneen mu ne dëgg dëgg loolu moom mënuma koo toléré ndaxte dëgg dëgg nag loolu mooy tooñ dëgg nag ak yàpp ma man borom bi subhanahu wa taala mu ne kon kooku bu ñëwee fokk rek ma jëflante koog moom xanaa ma baaxee ko ci àdduna de mu dal di tuub kon yal nañu borom bi subhanahu wa taala baaxee ci ñi nga xam ne dañuy tuub moo tax bokkaale boobu borom bi junjoon ñu ko mu dal di ñu wax ne inna shirka la zulmun azim mu ne bokkaale tooñ bu mag la gis nga mu jox ko melokaanu mag mu ne tooñ moom fa muy yem rek mooy bokkaale kon bokkaale moom lu raglu la yàlla nañu ko borom bi subhanahu wa taala musal dalil bam ñuy jox ci quranul karim nag mooy wa anna almasajida lillah fala tad'u ma allahi ahda wa anna almasajid masajid borom xam-xam yi déggee ko ñaari maani masajid ñu déggee ko ñaari maana masajid mooy ismun lil makaan wala ismun li aadaai sujud fii lañu ci wutee ñu ne kon masajid mooy turu béréb ba ñuy sujuudee la wala turu membre ya ngay dimbale koo ngir nga sujuud ndaxte yonent bi daa mun ci wax umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin man diglañ ma bu may sujuud naa jëfandikoo juróom ñaari yax maanaa jébi ak bakkan bi ak ñaari tenk loxo yi ak ñaari bëtu óom yi ak ñaari cetu tànk yi muy juróom ñaari yooyu kon ñenn ñi demee maanaa bi mooy loolu maanaa bi mooy juróom ñaar yooyu dañ borom bi subhanahu wa taala moo ko moom kon yooyu bu ñu sujuudal keneen ku dul allah am ñeneen ñu dégg ne déedéet maanaa bi mooy jullekaayu yàlla yi ndaxte masjid mooy néeg bi yu bari yi ñooy masajid kon mooy boo dégg duggee ci néegu borom bi subhanahu wa taala bu fa saggati kenn nag bu fa woowati kenn nag bu fa ragalati kenn nag bu fa gisati kenn màgg na ku dul borom néeg ba muy allah kon ñaari tafsir yooyu moo am ci annal masajida lillah kon mu ne bu pawoo keneen ku dul borom bi subhanahu wa taala kon keneen koo xam ne kabbar na fa ne ci barke diw julleem boobu laa tukbal julleem boobu sama néeg bi nga xam ne maa ko moom maa ko jagoo adduna bi yépp maa ko moom waaye néeg bii rek laa wax ne maay boromam waaye sa kër bi yàllaa ko moom waaye bàyyi na mu ne yaa ko moom waaye wa annal masajida lillah yàlla mu ne néeg yi moom néegu yàlla kon nag yàpp ma yem na ni dem ba ci sama néeg nag tagg fa keneen ku dul man barkelu ci keneen ku dul man bu dee barke kay barkelu ci borom néeg bi bu dee sant kay santal borom néeg bi bu dee jaamu kay jaamul borom néeg bi waaye bokk na ci yàpp yàlla nag dugg ba ci biir néegu yàlla bi mu moomale boppam nag nga ne ci barke diw borom bi mu ne maa ngi lay xaar ndax diw boobu am na barke wala diw boobu am na sañ-sañ wala diw moomu toll na fi nga xam ne dag ma boole ak moom yépp ma ba ñëw fi ma waroon a taggee tagg fa keneen ku dul man waaye borom bi nag moom lii nit ñi di wax la sàcc bu du raw yow yàq sa nelaw tëddal rek nelaw ba bor fet na dagg ci gannaaw du raw du génn lu mu jël rek du def bul sonn di yuuxu bul sonn di dagg tay nelew nelewal rek ba bor fet nga dal di ko téye loolooy borom bi subhanahu wa taala moom yàkkamtiwul xam ne lu yàgg yàgg rek da nga toog ne teg dara dootul limu ay doomu adama ñëw summi yére ya ñeneen ñi sang ñeneen ñi yenu dal di yóbbu ñu gas ab pax ñu ne jébbal nañ la ko yàlla bu ngóob jébbal nañu ko boromam keroog ku nekk nag dina am ab tiit waajur bi ne ñàkk na sama doom wala bu dee ab waajur ay doomam ne ñàkk nañu ab waajur sëriñ bi ne ay ñàkk naa taalibe taalibe bi ne ay ñàkk naa sëriñ waaye yàlla ndax dina wax ne ñàkk naa kooku lañ koy delloo waaye ba mu amee njëriñ nag ñépp a ko bokk waaye ba nga xamee ne njëriñ dootul jóge ci moom dem ci yow rek keroog nga ne man bokkatuma jox naa ko boromam aka yelloon na fekk nangu woon na ne kookoy boromam balaa ñu koy jébbal boromam boobu kon loolu nañ ci bàyyi xel bu baax a baax ñu xam mbonu lii nga xam ne mooy ab sirk yàlla nañu borom bi subhanahu wa taala musal ci sirk yi ñu xam ak yi ñu xamul yàlla nañu woon dëgg ba ñu xam ne lii mooy dëgg mu wërsëgal ñu xol bu koy nangu yàlla nañu woon caaxaan ba ñu xam ne lii mooy caaxaan mu wërsëgal ñu xol bu koy dëgg wa axiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wassalaamu alaykum wa rahmatullah والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله kon mbokk yi ci xiwalu borom bi subhanahu wa taala dajewaat nañu benn ci néegam yi ngir ñu leerlu li nga xam ne mooy suñu sabab ñu ñëw ci kaw suuf te xam nañu ne mooy ibadatullahi wahdahu la sharika la te jaamu borom bi subhanahu wa taala li ci ëpp solo mooy pas-pas bi pas-pas bi bu wéree rek nangay jaamoo borom bi subhanahu wa taala day leer day sell pas-pas bi bu lëndëmee rek li ëpp li ngay jaamoo borom bi subhanahu wa taala mooy topp sa xelum bopp wala topp man-manub keneen te xam nañu ñaar ñi yépp kenn muccul ayib ci mucc ayib la mu tëral mucc ayib mooy borom bi subhanahu wa taala ak ki mu tànn yónni ko mooy muhammadun sallallahu alayhi wa sallam kon ci taxawaay boobu lañu jëlee woon téere bi nga xam ne mooy al usulu salaasa ñetti ponk yi nga xam ne doomu aadama bu ne war na ci jaar ci biir ñetti ponk yooyu nekkoon nañu ci buntu sëriñ bi joxoñal ñu ne am na ñetti masala yoo xam ne war nañ koo xam jëfee ko ni nga xam ne noonu la waree ñu jëloon ñaari tomb tey ñuy jël ñetteel bi tomb bu njëkk bi waxoon nañu ne mooy أن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقنا ورزقنا ولم يتركنا حملا mooy borom bi subhanahu wa taala moo ñu sàkk wërsëgal ñu neena lu ñu nag am na kum ñu booleel am na koo xam ne boole nañu ak moom mu ne ñu man ataahu daxala aljanna wa man asaahu daxala annaar képp ku dëppoog moom ànd ak moom say jëf gindandi ko ak moom rek mu ne nga jëm aljanna mooy yonent bi boo safaaneeg moom nga jëm safara joxoon nañu tegtal aaya bii nga xam ne mooy ba ñu yónnee ci fir aw na mu lànk mu ne yéen itam noonu laa yónnee ci yéen kon seetlu baa ngi noonu bu ngeen lànkee rek ma jaar ak yéen fi ma jaar ak firawn wal iyaadu billah bu ngeen nangoo nag ma dal di leen xiwalal jàppandalal leen yal nañu ko baaxee ñaareel ba mu ne ñu anna allaha la yarda an yushraka bihi anna allaha la yarda an yushraka bihi mu ne borom bi subhanahu wa taala moom du nangu mukk nag nga jaamu ko séddi ci keneen moom loolu moom du ko nangu li mu gën a bañ bokk na ci loolu mu ngi mel ni dañ koo laaj lu tax mu ne ana agna suraka ana agna suraka mu ne kooma booleel maa ko ëppale ndax maa ko moomaale far kon ma jéggal ko rek gannaaw maa ko ëppale nga ne yàlla yaa diw ma ne waaw jéggal naa diw ndax maa moom diw moomu ngay wax kon mu ne loolu moo doon ñaareelu tomb mu joxoon ñu dalil wa anna al masajida lillah fala tad'u ma allahi ahada mu ne fii nga xam ne fi ñu toog mooy néegu yàlla yi mu ne ah yooyu de moom yàllaa ko moom ngellawaay bu fa dugg moom di màggal keneen wala di ñaan ci barket keneen wala di sukkandiku ci keneen mu ne yabeel fa la yem baaxee la def la lu nekk ne la fii maa fi moom nga ñëw toog fi ma moom di ma santal keneen mu ne loolu moom daal loolu gënaluma maanaam moom borom bi subhaanahu wa taala junjoon nañ nag masaajid yooyu am na ñu ko jàppee néegu yàlla yi waaye am na ñu ci dugalaale juróom-ñaari cër yaay sujuut yooyu yàlla dong la war a toroxlul waaye warul toroxlul keneen mbaa leneen kon suñu tomb ñetteel moom mooy suñu bind tey tomb ñetteel mooy suñu bind tey mu ne ñu أن من أتى الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من هاد الله ورسوله ولو كانوا أقرب قريب tomb bi tomb la bu ñu war a bàyyi xel ndaxte mooy albina tabax bi ñuy tabaxee diin al islaami mu nekk li ñuy tuddee alwalaa wal bara ñan moo war a doon say soppe ñan ñoo war a doon say noon kooku buntu la boo xam ne dañ ciy war a bàyyi xel bu baax a baax moo tax mu ubbee buntu bi ne man ataa ar rasul wa wahada allah képp koo xam ne topp na yonent bi mu wéetal yàlla koo xam ne topp na yonent bi mu wéetal yàlla maanaam mu def yàlla kenn ndaxte loolu mooy tawxiid mu ne kooku nag na ko wóor daganatul ci moom muy soppante ak ku bañ ñaar ñi mu topp moom topp na yonent bi gëm na ne kooku dong lañuy roy mu jëriñ te gëm na ne njubam dong moo mucc ayib keneen ku dul moom boo ko royee kenn royloowu la ko mun nañ seet benn tomb bu tuuti rek ku nekk ci xelam rek dina déggee ne ndeke yonent bi dong lañu war a roy yonent bi dong nga am droit bind ko ci sa téere jàngale ko naka la doon demee wanok naka la doon séyee moom dong waaye beneen kilifa bu dul moom rek boo ko tuddee ñépp d'accord ne da ngaa ñàkk yar da ngaa ñàkk teggi lan moo ko waral roylowuñ la ko kon looy gëstu lu muy làq loo koy gëstu roylowuñ la ko kenn waxu la ne topp ko kenn waxu la ne jëlal ci moom kon boo ko toppee ba ci wanokam ba ci sëyam loolu ñàkk yar la ñàkk teggiin la waaye kiñ la royloo nag ñu ne la sab jëf duma ko nangu mukk nag lu dul mu mel ni jëfu kii moo tax da nga gis téere yeeg borom bi subhaanahu wa taala ak sunnaam moom ci boppam ba ci kow lalam ba ci wanogam naka laay toogee naka laay deferoo lépp ba mu pare ñu ngi ko bind ba mu leer lu ko waral ndaxte kooku lañ la royloo boo ko bàyyee rek tooñ nga kon nag moo tax boo foog nga jàng loolu kon keneen kuñ la royloowul boo ko toppee ba foofa tooñ nga ndaxte dina fekk heure boobu ñàkk yar lay doon ñàkk teggiin lay doon kon nag mu ne kooku nga xam ne nag moom lañ la royloo boo ko royee ki nga xam ne moo la sàkk nga def ko benn dootul dagan ci yow nag ngay soppante ak ku bañ yàlla ku bañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu mooy yéeféer umuman dootul dagan kon ngay soppante ak yéeféer nga xam ne day nekk ci sa biir xol moo tax mu ne la laa yajuuzu dootul dagan lahu ci moom ci kan ci topp yonent bi wéetal yàlla kon dootul dagan ci moom mu waalaatu muy soppante man ca ka nga xam ne haaddallaha bañ na yàlla wa rasulahu ak yonentam ba kon dootul dagan ngay soppante ak kooku walaw donte na kooku kaana nekk na koo xam ne aqraba qarib moo la gën a jege lu ne moo xam baay la moo xam yaay la moo xam soxna la moo xam borom kër la moo xam sëriñ la danga war a noonoo ak moom noonoo ak mbañeel ak tibel ak toroxtaande moom nga war a dugal sa diggante ak moom nga gëm ne kii du dara gannaaw bañ na yàlla kii du dara gannaaw bañ na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam léeg-léeg nag nit yaakaar ne bëgg na yàlla fekk déedéet léeg-léeg mu yaakaar ne bëgg na yonent bi fekk déedéet moo tax ñenn ñooñu borom bi subhanahu wa taala mu ne dangay gis ne seen xelum bopp la ñuy demee wa yaxsabuuna annahum yuxsinuuna sun'a mu yaakaar ne nag jëf jamay jëf jëriñ na ma borom bi subhanahu wa taala mu wéy mu ne xam nga jëfam ni mu mel ñu ne déedéet mu ne kassaraab kassaraab yazunnuhu zamaanu annahu ma saraab mooy bu naaj wi tàngee dangay seen fu sori yaakaar ne ndoxa fa ne mu ne ku mar day yaakaar ne bu fa demee lii ndox la mu ne boo waaxoo ba foofa lam yajid shay'an wa wajada allaha indahu mu ne dina dem ba foofu nag mu ne du fa fekk ndox de du fa fekk dara waaye dina fekk yàlla nga ko fa xaar mu ne mooy bés pénc da nga yaakaar ne sama julli bi baax na sama zikkar yi baax na li may tuddee yàlla baax na yàlla diglewul yonent bi diglewul nga jàpp ne ku baax nga nga dund ci loolu rek bal da ngay ñaan sax yàlla naa dee ci lii inna lillahi wa inna ilayhi rajiun loolu mooy ñaanuk gàtt xel ñaanuk ku am xel yàlla lii bu dee mooy dëgg dimbale ma ma jaar ci bu dee safaan ba dimbale ma ma génn ci loolu la yonent bi doon ñaan allahumma arina alhaqa haqqan wa arzuqna husna ittibaa wa arina albatila batilan wa arzuqna husna ijtinaba yàlla won ma dëgg ba ma xam ne lii la nga wërsëgal ma ma jaar ci won ma caaxaan ba ma xam ne lii la nga wërsëgal ma ma ba ko ndaxte gis dëgg taxul jaar ci xam lu bon taxul ba ko loolu yëpp sukkandiku ci borom bi subhanahu wa taala moo tax yéeféer yi dañ doon woo borom bi subhanahu wa taala mu ne li yonent bi indi su fekkee ne mooy dëgg wa anzil arayna yaani hijaara fekkee ne lii mooy dëgg rek wàcceel ci ñun taw boo xam ne taw doj la mu alat na léegi aktaru ahlul bid'a loolu la ñuy wax diw moom li mu nekk bu fekkee ne nekkul rek naa dugg safara waaw moo ndax yow boo duggee safara ku koy yëg kan moo koy yëg yow la keneen yoonam nekku ci diw li mu nekk su fekkee ne mooy dëgg yal na ma ci yàlla saxal bu dul dëgg yal na ma ci yàlla génni kii mooy su ñaan boo xam ne mooy ñaanu tegginte mooy bàyyi jëriñ te laa yustab at nag diw ku mu mun a doon la mu nekk nekk caaxaan laa yustabat ndaxte imaamu malikin rahimahullah wax ju leer la doon wax kullun yu'khadhu min qawli wa yuraddu illa sahiba hadha alqawl koo xelaat ci aduna lu mu màgg ci sa kanam am na lu ñuy jël ci moom jëfee ko waaye am na luñ koy bàyyee fekk amul njëriñ fekk bidaa la amul benn njëriñ dañ ko koy bàyyee lu dul muhammadun sallallahu alayhi wa sallam kooku dong mooy léppam dañ koy jëfee léppam lu mu tere dañ koy bàyyi ndaxte assurance bi ñu borom bi subhanahu wa taala wax moom dong la ñu wax ne laa yantiqu anil hawa in huwa illa idan wa gayruhu yantiqu anil hawa moom dong la wax ne du waxantu lu mu wax maa ko ko waxloo moom dong la wax na kon ku dul moom dina waxantu léeg-léeg nga wax loo xam ne intérêt tax nga wax ko léeg-léeg nga wax loo xam ne réerée moo tax nga wax ko léeg-léeg nga wax loo xam ne càggantee tax nga wax ko yu bari léeg-léeg nga wax loo xam ne dangaa yaakaaroon ne looloo am te amul te moom dong itam la ñu wax ne maa kasabal fuaadu maa raa xolam musul wute ak lim ko borom bi subhanahu wa taala woon wax yu bu mu wàccee ak moom mu dem ba xelaat safaan ba mais loolu amul te moom dong la ñu wax ne maa zaagal basaru wa maa taxa ay bëtam sax beewuñu luñ ko wax ne lu xaraam la benn yoon la koy gis rek jeex na dootul nangoo yëkkati ay bëtam mu dal di jëm ci loolu lii yépp nag ba mu paree borom bi subhanahu wa taala mu ne gis ngeen kii de ñu ne waaw mu ne ñu wa in tutiuhu tahtadu su ngeen ko toppee jub de su ngeen ko toppee ñu ne waaw mu ne ngeen jub kon nag safaan ba almafhumul muxaalafa mooy su ngeen wuuteeg moom jubadi hakaza su ngeen wuuteeg moom rek jubadi moo tax mu ne wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faaza fawzan azima képp koo xam ne déggal na yàlla ak yonentam mu ne kii day texe na moo taxoon yonent bi boole ko ci melokaanu imaan mu ne ku mu nekk ci sa xol rek yaakaaral xamal ne fekkoon ne imaan luy saf la ni kon yëg nga ko ci sa gémmiñ salaasun man kunna fiihi wajada bihinna xalaawata al imaan an yakuna allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwaahuma mu ne yàlla ak yonentam gënal la kudul yàlla ak yonentam mbaa noonu la ñu mel ah alaamatul istifham kon loolu benn point d'interrogation la ku nekk moo koy xam ci biir xolam mbaa yàlla ak yonentam moo la gënal ludul yàlla ak yonentam gënal la yaay gënal la baay gënal la doom gënal la jëkkër gënal la soxna gënal la réew gënal la sëriñ gënal la lu ne lu la bugg a dox sa diggante ak yàlla ak yonent ba nga bako loolu mooy yàlla ak yonentam moo la gën a lu dul loolu lu bugg a dox ci sa diggante ak ñii rek nga bako lu mu mun a doon nag mooy benn nga xam ne ah yow moom yaakaar nañ ne am nga lii nga xam ne mooy imaan ñaareel ba an yuhibba al mar'a la yuhibbuhu illa lillah nga gis nit rek sopp ko soppeewoo ko lu dul taxawaayam ci yàlla ak yonent bi loolu dong nga ko soppee du dara leneen gis nga ne moom daal ku taxaw la ci digganteem ak yàlla ku roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga ne waa jii daal sopp naa ko ngir yàlla ci taxawaayam bi mu ne loolu ku am imaan dong moo koy am waaye ku amul imaan day wax ne kii ku génn topp la ah kii day diingat mag ñi ah kii day def nangam ak nangam gis nga amul imaan ndaxte yàlla ak yonentam la bëgg rek mu ne day diingat mag ñi xanaa ka ñuy diingat kay jaarul ci yoon bu jaaroon ci li yonent bi wax qul haadihi ba mu jeex waxal ne lii lan la joxoñoon mooy doxalinam moom mooy sama yoon fekkoon ne ci yoon boobu la jëloon bu buggee dëggal la mu bugg nit ñi jëf ko mu ne yàlla ne na bu buggee dëggal la mu bugg nit ñi roy ko mu ne yonent bi ne na kii de ku topp yàlla ak yonentam dootu ko diingat waaye bu jàddee yooyu bàyyi ko fële nag moom moo diingat lu boppam ndaxte moo bugg a saxal lu saxul moo tax nag ñooñu mel noonu amuñu référence li ñu am mooy seeni làmmiñ yaxsabuuna kulla sayhatin alim ku yëngu rek ñu ne kii day boo gisee maay wax li may def la bugg a diingat xanaa li ngay def kay àndul ak aaya xanaa li ngay def àndul ak xadis kon ku ko diingat nekk yéeféer am maanaam ku fee sa xelum bopp wala xelum masamba wala xelum sapwaay te mu safaanoog yàlla ak yonentam ah quraanub yàlla bi nag moom ak sunnaab yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yooyu moom lu sax la du fi jóge amul kenn ku ko mu fi mun a dindi inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu la haafidun maa wàccee lii te maa koy sàmm wallahi al azim am na ñoo xam ne tey bu ñu mënoon soppi alquran dal di ko sopp dugal fa turu maa samba wala dugal fa turu maa demba wallahi waaye nag anna lahum dalika bu ci dindi woon benn tomb di jàng alquran xale bi nga xam ne juróom-ñaari at la tollu jàng na ko te xamul sax lu muy firi boo nee ba te mu waroon a nekk na rek mu ne ah papa na la de gis nga boo nee bu te mu waroon a nekk ba mu ne ah papa ba la de gis nga munoo ci dara kon loolu moo tax ñu fëx dal di dem ci sunna waaye nag alhamdulillah borom bi subhanahu wa taala tàggat ay borom xam-xam ulama u jarhu wa taadil ñu ne la lii wér na lii wérul hadis bi yoon wu mu jaar muccul ayib hadis bi sax dañ koo sos ci yonent bi faf yonent bi waxu ko faf ñu lamb lamb gis ne ah foofu du rawwaay ndaxte tekkal yu leer a ngi tegu nii tekkal yu leer yoo xam ne ñu ngi tegu ñu xam ne fii du rawwaay ñu dem làqu feneen fan la ñu làqu yéen mu déggu leen quran quran daa am zahir am baatin déggu leen quran zahir ak baatin zahir bi mooy sharia jëfal bàyyi loolu mooy sharia mais ñun li ñuy wax baatin la ñu ngi ko jëlee lawhul mahfuz ah kan moo la ko wax kan moo la ko wax man ah jinne yi de ñoom ba ñu ne ñu ngi dem lawhul mahfuz ñoom ay jumlay safara moo leen fa dàq ah inna kunna naqudu minha maqaida li sam'i fa man yastami il an lahu shihaban rashada mais ah de léegi moom jaaxle nañu depuis quran wàcc daal ku yéeg rek jum safara moo la topp kon am na lu yàlla namm de xaw ma lu mu namm ci waa réew waa suuf nag xaw ma li mu namm ci moom xayran la wala charran waaye ñun moom ku yéegati rek jumub safara ah xëy na ñoom am na fu ñuy jaar malaaka yi ba rëcc ba mun a dem lawhul mahfuz allahu alam kon foofu la ñu yaakaar ne mooy rawwaay waaye du rawwaay ndaxte ku am xel koo xam ne yaa ngi jëfandikoo sa xel aaya ne fang mu ne la wa aqimi salaa taxawalal julli keneen ñëw la ne ah loolu zahir la loolu ci kaw gi rek waaye boo demee ci biir du julli la ci namm na nga fexe sa xol takkoog borom bi subhanahu wa taala loolu la ci namm ah waabud rabbaka hatta yatiyaka al yaqin ñuy tegtaloo aaya boobu ne da ngay jaamu borom bi subhanahu wa taala ba am yaqin boo amee yaqin bu la neexee nga bàyyi jaamu yàlla bu la neexee nga def lu xaraam bu la neexee nga def leneen waaye alquran mooy firi boppam nañu dem ci alquran ñu laaj borom bi subhanahu wa taala loo namm ci yaqin bu ñu laajee borom bi subhanahu wa taala loo namm ci yaqin moom dinañu ko waxal moom mu ne yaqin li mu ci namm mooy almawtu mooy dee jaamul yàlla be dee aa ñu dem ci ñi nga xam ne dugoon nañu safara borom bi subhanahu wa taala ne malaaka yi laaj leen lu leen dugal safara bañu leen laajee maa salakakum fi saqar qaalu lam naku min almusallin wa lam naku nutimu almiskin wa kunna naxuudu ma alxaaidin wa kunna nukadibu bi yawmi ddin hatta ataana alyaqin naam hatta ataana alyaqin kon yaqin boobu noo koy firee takkoog yàlla be am yaqin déedéet yaqin almawtu yaqin mooy al almawtu wabud rabbaka hatta yaatiyaka almawt loolu la borom subhanahu wa taala wax jaamul yàlla be dee kon al yaqin mooy almawtu waaye naa toog rek am ay tur yu ma zikkar rek ma ne am naa yaqin génn ci mbedd bi ma ne man dootuma jaamu yàlla damay def nangam am naa yaqin kon ki doon woo kay du allah innama yaduuna cheytaanan marida borom bi leeral na ko mu ne ponkalum jinne la doon woo ponkalum cheytaane la doon woo rek seytaane dal di ko feeñu boole ko iblis ñu dal di dem mu ne am naa yaqiin ku am yaqiin dootul jaamu borom bi subhanahu wa taala inna lillahi wa inna ilayhi rajiun borom bi subhanahu wa taala leeral na ya ayuha alladina amanu ittaqullaha haqqa tuqaatihi wa la tamuutunna illa wa antum muslimun foog nga wommatu ci li borom bi subhanahu wa taala wax waaye yeneen mbir ak yeneen yooyu zahir ak baatin ñun nañu moy ci zahir bi borom bi subhanahu wa taala wax jullil nañu julli wooral nañu woor ajal nañu aj saraxel nañu saraxe nii laa tudd waxal noona la tudd na noppalu waaye nii la yàlla tudd nga ne ah déedéet loolu lil awaam yàlla daa wax noonu rek waaye tuddul noonu am na beneen tur boo xam ne am na masamba bu mu ko dencaloon waaw masamba boobu ban communication moo ko yóbbu ci borom bi subhanahu wa taala ba mu jot tur boobu communication bu leer boo xam ne am na dalil ne lii ci yàlla la jóge kooku moom ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ko amee te borom bi assurel nañu gannaawam amatul keneen ku mu jox mission buy dem ndaxte mooy xaatamul anbiya kon nañu bàyyi xel ci loolu bu baax a baax kon ci anam googu mu ne ñu loo jegewanteeg moom maanaa bu ko def soppe mu indil ñu aaya ci suratul mujadala mu ne borom bi subhanahu wa taala moo ko wax day du man mu ne laa tajidu qawman yuminuuna billahi walyawmi al axir yuwaadduuna man haada allah wa rasulahu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أسيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم وردوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون kii wax bu leer naññ la boo xam ne laa yaqbalu taawil nanguwul ne nii laa ko déggee ndax wax bu leer naññ la moo tax borom bi subhaanahu wa taala dal di ñu wax ne ci ala hasabil ixbaar maanaa xabaar li mu wax bu safaanoo ak li am ka wax mu wuuteeg la war a am borom bi subhaanahu wa taala lu leer la daa am xabaar bu ñu jox ñu ci natteeku gëm yàlla boo gisee ab jullit bu am safaan ba mooy ñaari seede yi mu tudd looloo dëgguwul ci moom ci xolam ndax borom bi subhanahu wa taala li mu wax du soppeeku te moom dafa wax ne laa tajidu qawman yuminuuna billahi wal yawmi al axir laa tajidu doo fekk mukk qawman ay nit yuminuuna billah fekk gëm nañu yàlla wal yawmi al axir te ñuy gëm bés pénc ñaar yii nga fekk ay nit ñoo xam ne gëm nañu borom bi subhaanahu wa taala te gëm nañu bés pénc ne aljanna nga fa safara mu nga fa siraata nga fa hawdu mu nga fa miisaana nga fa yii yépp ñu bokk gëm ko yu waaduuna man haada allah wa rasulahu mu ne loolu du am ñuy soppante ak ku weddi loola loolu munul am yow nangu nga ne yàlla la moom yàlla la sàkk moom dong moo yeyoo jaamu keneen taxaw fale ne la yàlla amut nga soppante ak moom déggoo ak moom am subhanahu wa taala mu ne loolu du am mu kon yow ki wax ne yàlla yaa gëmut waaye moom moom mu ngi ca la mu ne mu ne loolu doo ko gis mukk ak yonent bi nga d'accord ne yonent bi rek la ñuy roy texe keneen d'accord ne am na keneen ku ñuy roy texe ngeen déggoo munul ne mustahil loolu munul ne parce que seen jëmuwaay du benn kon mu ne doo fekk mukk nag kon ñuy soppante ak yéefér yooyu na nekk nag yahud ak nasara ndaxte ñoo ci jiitu ñooñu lañu borom bi subhanahu wa taala waxoon ne lan tarda anka al yahud wala nasara hatta tattabia millatahum yahud ak nasara duñu bég ci yow mukk nag dimbale la tagg la jëfal la tàppatappal la lu dul wóor na leen ne banga la nga ne ànd ak ñoom ca lañu ne fokk rek loolu am waaye loolu bu amul ñoom dañ lay xeex ab noon mooy nekk seen diggante ay intégriste ay islamiste ay ñoo xam ne ay défaillant ay fanatique loolooy nekk sa diggante ak moom waaye ñu yëngal bopp boomaarabu xamal ne yow yaay ci génn topp wóor na leen ne mën nañ laa utiliser ba nga yàq parce que wóor na leen ci bidaa nga nekk te wóor na leen ne bidaa kat du texe xam nañ ko ba mu leer naññe de wóor na leen ne bidaa kat du texe mukk bés pénc gannaaw yaa ngi ci bidaa nag ñoom lañu bëggoon mooy an takfuru kama kafaru fa takununa sawa ah kon noppale ko nañ ñoom li ñu bëggoon nga jàdd yoon li ñu jàddee yoon ngeen yem te wóor na leen ne bokkaalekat ak bidaakat wàcc na yoon nekkatu ci yoonu islam ñoom loolu la ñu bëggoon am nañu ko kon fokk ñu tàppatàppal la woon la ne yaa fi ne yaa fi ne boobu nag ngir nga des yaag sax ñi la topp nga yem ak ñoom bés fecc ndaxte dañ lay atte texewoo ñu atte leen texewuñu ñoom yow a yem yow looñu looñu rawe yépp a di benn kon loolu moom mbir la moo xam ne ku ne di ci war a bàyyi xel bu baax a baax moo tax mu ne doo ko fekk mukk ndaxte yahud ak nasara loolu seen mébét mooy ngeen weddi mébét rek ngeen weddi moo tax mu ne walaw donte kooku bañ yàlla ak yonentam bi kaanu nekk nañu aabaahum seeni papa donte ki bañ yàlla ak yonentam nekk na seeni papa moo tax boo réeree dundub saxaaba dootoo mun a nekk ci islaam looloo tax umar ubnul xataab radiallahu an mu ne man moom gëm naa ne jullit ab njulliteem du mun a leer mukk lu dul xam na fa nit ñi toll woon balaa ñuy yónni muhammad sallallahu alayhi wa sallam lu dul loolu rek mu ne dangay dund islaam bu am njaxas waaye boo xamee fa nit ñi toll woon ci bokkaale ci ay wax ci yeneen kon dangay dund dund boo xam ne bu sell la moo tax borom bi fii donte ne kooku bañ yàlla pàppa la abu ubayda amir ibnul jarrah moom moo ñu ko woon moom moo jàkkaarloog baayam ci ma askar moom mu ngi ci kuréli jullit yi baayam mu ngi ci kuréli yéeféer yi ñu daje di xeex mu jàkkaarloog moom rey ko ndaxte mu ne dara nekkul suñu diggante dara laa shay abaynana tey daal li nekk suñu diggante yow yaa ma jur maay sa doom gëm naa gëmuloo baynana sayf jaasire moo nekk suñu diggante mu ngi nii ñu daje dal di ko faagaagal kon kii la borom bi subhanahu wa taala ji junj dëgg dëgg kii dee xam nga ab cofeel nekkul diggante moom ak yéeféer moo tax borom bi mu ne walaw kaanu aabaahum donte seeni pàppa la kon application bu leer baa ngi noonu ci abu ubayda amir ibnul jarrah radiallahu an looloo tax ñu ñu bégalee ko ajana mu ngi dund ci kaw suuf amir ibnul jarrah bokk na ci fukk ñi ñu bégalee aljanna te ñu ngi dund ci kaw suuf fukk yooyu bëggalee nañ leen aljanna ñu ngi dund ci kaw suuf kon mu ne donte seeni pàppa la aw abnaahum wala muy seeni doom noonoo rek moo fa war a ne aw ixwaanahum wala ñu nekk seeni mbokk aw ashiratahum wala ñu nekk ci seenu xeet kon dara jëriñatul njureel jëriñatul moo xam pàppa la moo xam doom la mbokkoo jëriñatul bokk xeet maanaa bokkandoo sant jëriñatul mu ne yii yépp nekkul lu tax di takk nit ñi ñu jegee ñu nekk benn la leen di jegeñante ñu nekk benn soppante ak dimbalante sax ci seen diggante mooy raabitatul imaan mooy gëm rek gëm rek ndaxte islaam xaraamal na sax donnante laa yarisu l muslimu l kaafira wala l kaafiru l muslimu kon léegi lan moo lan moo leen teqalaat dajale wante amatul sëy daganatul ci seen diggante borom bi subhanahu wa taala leeral na ko mu dal di ñu wax la wala tankihu lmushrikaati hatta yuminna wala amatun muminatun xayrun min mushrikatin walaw ajabatkum wala tunkihu lmushrikiina hatta yuminu wala abdun muminun xayrun min mushrikin walaw ajabakum ulaika yaduuna ila annar wallahu yaduu ila aljannati walmaghfira bi idni kon mu ne bu leen takk ay yéefir bu leen takk ay yéefir lu dul nag bu dee yéeféer boobu cosaanub diineem mooy yahud wala nasaara borom bi subhanahu wa taala yaatalal na foofu maanaa sëy mun a am ci seen diggante bu dee ki ko jël mooy jullit waaye umar ubnul xataab radiallahu anhu keroog ba mu jotee xilaafa moom keroog la wax ne loolu moom mayatuma kenn mu dal di ko def naam aaya baa ngi fi dagan na waaye man sikk na ki bay al muminaat bu njëkk aaya bi naam boobu pour gis jullit bu jigéen jafe na jullit bu jigéen jafe na saxaaba yaa ngi fi ñu ngi génn di xeexi ñu ngi nekk ci yeneen réew loolu dal di dagan ci ñoom ñu dal di ko jël ba léegi nag nangu naa ne dagan na waaye nga romb jigéeni jullit yépp nga dem jënd jël kaafira nga ne ngir aaya bi ne na dagan na mu ne yow dañu war a seetaat sa iman ñi ko amoon yëpp mu forcé leen ñu fase leen umar ibnul xataab radiallahu anhu parce que moom ci jamonom dafa amoon dëgër lay dafa dëgëroon mu ne jullit yaa ngi nii lii yëpp doomu jullit lañu ku fi bàyyi jullit bu jigéen dem takki ab yéefér ma jëflante ko yow contraire bi nag moom lu xaraam kon fokk rek mu nekk kon juif maanaam yahud wala nasraan chrétien heure bii nag moom aaya bi dal dina ko daganal waaye bu ñu seetloo nag moom jullit yu bari yépp nga romb leen dem jëli kooku dëgg-dëgg doy na waar lu ñuy war a seetaat la nit ñi nag dañuy wuutale lu dagan ak lu war a am dagan na ci palaasu dagan la tollu waaye am na lu ko gën moo tax mu ne bu leen jël ay yéeféer bu dee amul diine nag moom xaraam na nga jël mu ne bul jël jigéenub yéeféer de mu ne gis nga jaam bu jigéen bu tilim bii fekk gëm na moo gën kale fuuf donte yéem na la ci taaram yéem na la ci njàngam yéem na la ci xelam yéem na la ci am amam mu ne ba ko fa du dara mu ne bul may itam yéeféer yi ñoom itam bu leen may ay soxna lum la mun a yéem nag mu ne gis nga jaam bee nga dëkkal amul dara mu ne nga mayoon ko moo gën mu ne kale bum la yéem de ci taaram ci jàngam ci man-manam ci alalam mu ne bum la yéem lan moo waral loolu mu ne ndaxte ñooñu ñépp dañuy woote jëme safara yaduuna ila ila naar mu ne allah nag yàlla borom bi subhaanahu wa taala mu ne ulaa'ika ñooñu ñan ñaar ñi mu junjoon fële ki nga xam ne topp na yonent bi wiital na yàlla mu ne ulaa'ika ñooñu kataba fi qulubihim al iman borom bi subhaanahu wa taala moo dugal ci seen xol ngëm wa ayyadahum bi ruuhin min mu dëgëralee leen ci taxawaay boobu maanaa ci dundal diine bi ruuhin min maanaa ci dundal diine ci iman fii la tudde ruux ndaxte iman dong moo mun a dundal doomu aadama bu dul loolu leneen loo jël rek day rey doomu aadama seet leen iman gis nga bu ñu seetloo lenn rek dañ ko dul seetluwaay kéemtaan a ngi ci seet leen rek bejjaawub jullit niroowul ak bejjaawub yéeféer hatta shayba seetal fii rek koo xam ne ab yéeféer la ba mu bejjaaw rek bejjaaw yi du weex tàll day xeereer doo xam la mu niroo dal di soriwante doo xam lu muy mel waaye koo xam ne ab iman ab sell moo nekk ci moom bu bejjaawee seetal nañuy weexee ak nañuy ànde ak nañuy rafete ak naka war nga di tëddee nemmeeku ko ci yéeféer yi du benn kon loolu iman mooy xisaau ruuxi loolu mooy dundal ruuxub doomu aadama amma lekk bi ñuy lekk nag mooy dundal yax yeeg suux yeeg ak leneen waaye loolu bu bokkul ak liy dundal ruuxu bi foo jàkkaarloog boromam rek ab ab tilim ngay gis ci kanamam du am leer mukk leeru iman du ko am mukk képp koo xam ne na muy jaamoo borom bi subhanahu wa taala du noonu la borom bi tëralee rek seetlu ko du ngeen daje mukk nga gis ne mu ngi am ab leer ci kanamam abadan foo dajeeg moom rek kanam gaa ngi lëndëm doo xam la muy niru la muy niru moom doo ko xam waaye koo xam ne nag macha allah day jaamu borom bi subhanahu wa taala bu baax borom bi da koy defal ab leer ci kanamam leer googu ñuy ñaan bu ñuy dem jàkka yàlla nañu ko borom bi subhanahu wa taala defal moo tax mu ne ñooñu wa yudxiluhum dina leen tàbbal jannaatin ci ay aljanna tajri min tahtiha al anhaar aljanna yoo xam day daw ca ron nga ay seew nde xaalidiina fiiha dañu fay sax nag duñ fa joge mukk résultat ba mooy lan radiyallahu anhum wa radu anhum borom bi subhanahu wa taala bég na ci ñoom te ñoom itam bég nañu ci borom bi borom bi ne ulaa'ika ñooñu hizbullah ñooy waa yàlla boo buggee xam partenaire yàlla mu ne waaw mu ne ñooy ñooña borom bi ne ala xanaa yégoone inna hizballahi humul muflihun xanaa yégoone partenaire yàlla yi dong ñooy texe ndaxte yàlla moom aljanna ñooñu dong ñooy texe moo tax mu waxoon ñu ne wasiqa alladina attaqaw ila aljannati zumara ñu dal di womot ña nga xam ne ñoo ragaloon yàlla jëmee leen fii nga xam ne mooy aljanna yàlla nañu ci borom bi subhanahu wa taala boole kon ñooñu dong nag ñooy raw ñooñu dong mooy ñi nga xam ne ñooy mucc kon yàlla nañu borom bi subhanahu wa taala boole ci ñooñu nga xam ne ñooy raw borom bi nag waxoon nañu ñamu ca boole am na fu ñuy seet ñu yaakaar ne ñu nga ca am na fu ñuy seet ñu tiit ne bokkuñu ca mu ne foofu mooy fan mooy yittewoo sa diine xam ko yittewoo sa diine xam ko boo gisee ne yaa ngi yittewoo sa diine xam nga sa diine anta min hizbillah dina fekk yaa ngi bokk ci kurélu yàlla ndaxte danga koy xam jaamu ko dangay xam la mu xaraamal nga ba ko nga xam la mu faratal nga jëf ko nga xam la mu daganal nga fàgg ko ci yoon woo xam ne mooy yoon wu jekk yoon wu rafet moo tax mu ne ñu yonent bi leeralal ñu ko mu ne ñu man yuridillahu bihi xayran yufaqihu fi diin képp ku yàlla namm ci moom ab njub ak baax dugg aljanna ëllëg dina la dégguloo sa diine kon képp ku déggul sa diine bul yaakaar de boo yaakaaree nax nga sa bopp déggoo sa diine nga yaakaar waay waay waay nax nga sa bopp waay bu ñu doon def fi benn concours ku jàngul dem rek moom itam toog nax na boppam résultat bu génnee dina at mi ah déedéet du at mi mu su fekkee ne la ñu jëfandikoo mooy adaala nga xam ne moom day ñëw rek benn waay mu ne ko waaw bindal ma fii sama nga bind turam ñëpp bind rendre yow itam nga daldi rendre sa fooy boo xam ne verse la amul dara résultat génn ñu gis ne yaa ngi ci kaw kon dinañ xam ne maandu amul waaye bu maandu amee yow sa tur du génn kon nag yow xamuloo sa diine dégguloo sa diine xamoo nu ñuy jaamoo yàlla nga yaakaar nag bés bi nga xam ne dangay toog rek ñu wol buftu bi rek nit ñi jogaat ñu ne la udxuluha bi salaamin aminin ha du noonu de borom bi subhanahu wa taala mu ne du noonu de du ma jëfandikoo ak yow noonu déggoon nga sa diine jëfoon nga ko hakaza noonu ngay def hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan loolu la ñu borom bi subhanahu wa taala wax lu rafet moom ah lu rafet a koy fay ah loolu moo tax olof yi léeg-léeg ñoom dañ koy misaalee beneen misaal ñu ne gàttub geen lu koy fay gàttu geen ni moom hakaza mais yow nga bugg a bokk ca ña nga xam ne macha allah fil illiyin te jëfuloo ko ah borom bi subhanahu wa taala lu leer la ñu waxoon lan la ñu waxoon inna kitaabal abraari la fi illiyin la ñu waxoon kitaabal abraar téere jëf yi nga xam ne lu baax la ñu jëf ñu ne boobu seen adresse mu nga illiyin aljanna boobu nga xam ne mooy illiyin mu ne foofu lañu bind seen adresse bind fa seen numéro def fa lu ne teg fa ay xuurul iin ñu toog di leen xaar bu bés pencee ñu ne ko gis nga sa téere jëfa ngi nii mu dal di xool ah illi yiin numéro villa nangam ak nangam mu dal di xool ki nekk wetam mu ne haa umu kaw kitaab ya inni zanantu anni munaqib hisabi ne xoolal sama adresse man man gañe naa de man kay ah man kay réussir naa man dem na waaye borom bi subhanahu wa taala lañ la ñu waxoon inna kitaabal fujaari la fi sijjiin hakaza mu ne ñu bon ñeeg saay-saay si ñoom itam seen adresse mu ngi si jiit safara beeg jaan yeeg jiit yeeg musiba yeeg mu ngi fa toog di leen xaar ñoom itam ñu bind foofu ñu ne villa numéro nangam diw fala moom itam bés penc buñ ko joxee téere mu ubbi rek mu gis lan lay gis la fii si jiit mu ne yaa laytani lam uuta kitaabiya musiba am na de téere bi day waruñ ma ko woon a jox yaa laytani lam uuta kitaabiya téere bii day waruñu ma ko woon a jox waaye lan moo xew ah man de xawma lu borom bi nara atte ci man ah fen xam na ko de xawma lu borom bi atte ci man loolu day xawma ko waaye nag yaa laytaha kaanatil qaadiya aka yelloon mu yem fi rek ñu ne aljanna amatul safara amatul saye saye kunu turaban léegi na ñëpp nekkaat suuf saye saye mu ne aka yelloon mu mel noonu ndekite yoo maa agna anni maaliya halaka anni sultaaniya mu ne ndeke sama alal ju bari ja kat ndeke jëriñuma fi dara akama bàyyi nag alal ah oto yaa ngay daw de étage yaa nga taxaw ndeke man fii jëriñu ma dara ndeke li ma alak mooy sama autoritaire dama amoon sañ-sañ ci wax ba wax ne man ragaluma kenn ah man dama koo konte waaye kooku man sama yoon ci yooyu man ragaluma kenn de man damay def nangam nangam ah mu ne ndeke looloo ma alak ah halaka anni sultaniya sama autoritaire bi ma doon jëfandikoo mana la nangam daal ku ko deful doo def nangam te yow li nga doon woo nit ñi bidaa la nga jëfandikoo autoritaire nag nde nga ne ndekete yoo loolu moo ma alal wax jooju nag borom bi subhanahu wa taala mu ne wax ji soof na ma waay malaaka yi lu ngeen xaar xuduuhu fa gulluuhu summa aljahima salluu summa fi silsilatin zaruha sabuna ziraan fasluku mu ne jàpp leen yeew leen tunqom leen jël leen ceen boobu nga xam ne soixante-dix mètres la ngeen laxas loxo yi boole ko doq gi sànnil ma ko ci biir safara ñu ne ko nag ah waaw musiba bi moom lu ko ko yóbbee ah mu ne innahu kaana laa yuminu billahi l azim yàlla bu mag bi la gëmuloon daa amoon yàlla yu ndaw kon nag tey maa ngi seen ndax yàlla yu ndaw yooyu man nañ ci dara kon yàlla nañu borom bi subhanahu wa taala atte ci yërmandem yal nañu woon dëgg bi ñu xam ne lii mooy dëgg mu wërsëgal ñu xol bu koy nangu ñu jaar ci yal nañu woon caaxaan ba ñu xam ne lii mooy caaxaan mu wërsëgal ñu xol bu koy sib ñu sori ko wa axiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum صلى الله عليه وسلم بقي نيغي وون تي الاصول الثلاثه نو ديمون دمو الف رحمه الله waxoon ñu ne doomu aadama bi fokk mu yittewoo ñetti masail ngir mu xam ko benn bi mooy fokk mu gëm ne yàlla ko sàkk wërsëgal ko te neenalu ko yónni na ci moom ku koy waxal na muy dunde ñaareel bi di borom bi subhanahu wa taala bëggul ku koy boole kenn mbaa lenn moom dafa bëgg ñu wiital ko moom dong lañu koy defal mu yeyoo ko ñetteel bi ci lañu taxawoon mooy borom bi subhanahu wa taala këpp ku ko déggal roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waruloo ànd ak ñawet di ñooñee kon ñi mu war a bëggante soppantek ñoom mooy ñi gëm la mu gëm kon ci tomb boobu lañu taxawee woon léegi nag mu bëgg ñu waxal diine jim ñuy woo ñu tuddee ko al islam te borom bi subhanahu wa taala ne moom du nangul kenn nag ab jaamu yàlla lu dul dafa diine woo diine jooja wa man yabtaxi gayra al islaami diinan falan yuqbala min këpp ku tànn beneen doxalin bu dul islaam borom bi ne bés penc moom duma la nangul kon nag diin al islaami mooy lan am na ci boroom xam-xam yoo xam ne ngir ñu leeralal ñu naka lañuy déggee al islaam ñu ne ñu mooy al istislaamu lillah bitawhid wal inqiyaadu lahu bittaa wal xuluus min ashirk li nga xam ne noonu lañu taarifee lii nga xam ne mooy tawhid mooy fokk rek nga dal di jox sa bopp yàlla ba ngay bég ak ba ngay mer ba ngay wér ak ba ngay feebar ba ngay am ak ba ngay ñàkk fokk nga jox sa bopp borom bi subhanahu wa taala te ni nga ko koy joxee ni ngay joxee sa bopp borom bi subhanahu wa taala muy wiital mooy xam ne rek la mu man moom dong nga ko man la mu sañ moom dong nga ko sañ mooy wéetal ko nga dal di nag wommatu ci lépp lum la digal nga def ko lépp lum la tere nga bàyyi ko te nga suri lool bokkaale ku def lii nekk na al muslim bu ci boolee nag li nga xam ne loolu la wax nit ñi dégg ko moo nekk ci biir xolam mu amaat beneen melo al mu'min yàlla nañu ko borom subhanahu wa taala def moo tax mu ne ñu i'lam arshadaka allahu li ta'atih أن الحنفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون مؤلف برحمه الله بمحمد بن عبد الوهاب منن اعلم أرشدك الله i'lam dañuy tàmbalee ci baat boobu ne la xamal ngir ñaax la nga bàyyi xel ci li ñu bugg a wax borom bi subhanahu wa taala bari na ci ay waxinam muy waxee noona fa'lam annahu la ilaha illa allah wastaghfir li dambik mu tàmbalee foofu ne la xamal ne amul kenn ku yeyoo jaamu kudul allah gannaaw ba nga xamee loolu nag xëral ngir mu jéggal la say bàkkaar kon mu allif bi itam jaar ci loolu mu ne la i'lam xamal mu ñaanal la itam mu ne arshadaka allah yal na la yàlla jubal kon képp ku jël kii bi rek xool téere bi rek da nga gis ne moom ñaanal na la yal na la yàlla jubal li taatihi ci topp ko wammatu roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon loolu ñaan la boo xam ne mu allif bi moom moo ñu ko ñaanal looloo tax dina rafet itam bépp téere boo jël ka ko taalif di la ñaax di la ñaanal nga naan rahimahullah yooyu itam nga dal di ko ñaanal su fekkee ne dundul maanaa na ko borom bi subhanahu wa taala yërëm kon suñu muallif bi itam rahimahullah moom ñaan bim ñu ñaanal fii ak wax jim ñu ñaax fii mooy na nga yëg ne am na loo war a xam te maa ngi lay ñaanal loolu nga war a xam nga xam ko te jëfee ko yàlla dëppale la ci li lay jëriñ ci sa aduna ak ci sa allaxira ndaxte ar rusd bim ñu ñaanal mooy al istiqaama mooy jub am na nag ku ñëwoon ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama bëgg nga wax ma ay baat te bul ko baril nag loo xam ne nag dootuma am yitte laaj ko keneen na nekk lu yem ma xam ko mun koo sàmm te duma sonn di ko laajaat keneen yonentu bi sallallahu alayhi wasallam ne ko qul amantu billahi summa staqim ñaari baat waxal ne gëm naa yàlla te nga jub gëm yàlla te jub kon njub boobu nag lañu muallif bi ñaanal kon yàlla nañu ko borom bi subhanahu wa taala jàppandalal kon mu ne أن الحنفية ملة إبراهيم الحنفية mooy diine ju jub kocc nga xam ne bokkaale sotsotloog parparloo amu ci wàll mooy ngëm boo xam ne bu jub kocc la moo tax borom bi subhanahu wa taala leeral na ko ci suuratul bayyina wa ma umiru إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين هنفاء هنفاء موي الحنفية يعني دين لبو جنگ ولف بيب تياخان دين لبو خامني فانيو كو اسكانالي ديمول سي بن كير موم موغي ديم رك قل هذه سبيلي فوف رك لا جيم sabili lii mooy sama yoon waaw sa yoon bi moom fu mu jëm sa yoon wi fa muy teeree naka la borom sant ne ah kooku nag moom amul sant ndax moo moom borom cant yi qul haadihi sabili lii mooy sama yoon sa yoon boobu mooy lan mooy demay woote jëme ci borom bi subhanahu wa taala fan laa koy teg ci xam-xam ala basira ndax man dongo la déedéet ana wa man ittabaan man mii muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak këpp ku ma roy kon ku woote jëme cib askan woote jëme cib kër woote jëme cib sant bokkoo ci ñiy roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñàdd nga haadihi sabili ba mu leeralee loolu rëdd na ab rëdd mu ne ñu gis ngeen rëdd bu jub bii mooy siraatullahi mustaqim mooy yoonu yàlla wu jub wi mu daldi rëdd yeneen ñu jàdd mu ne gis ngeen ñell yii moytu leen ko moytu leen ko de wa ala kulli sabilin shaytanun yaduu ilayhi mu ne fu ci nekk nag am na seytaane bu fa taxaw di woote jëme ci ñell woowu boo ko jaaree rek di dem rek di gën a sori sirat al mustaqim yàlla nañu ko borom bi subhanahu wa taala musal kon diine jooju mu ne ñu mooy alxanafiya doxalin bi nekk ci diine bi borom bi ne kenn du ko bañ a gëm jëfee ko lu dul ku doyati képp koo gis koo xam ne day diingat doxalinub islaam wala doxalinub waa islaam teg ko ci quran ak sunna xamal ne xel mi matul nu mu mun a mel rek na la wóor ne xel mi matul ndaxte borom bi subhanahu wa taala moo ko wax wa man yargab an millati ibrahim illa man safiya nafsa mu ne kan mooy doylu bañ doxalin bu leer bii lu dul koo xam ne ku doyadi la xam nga nit di nga yaakaar ne xel mi yemb na waaye dina fekk xel mi yembul moo tax yonent bi ne laa yu'sa allahu illa an jahal maanaa borom bi subhanahu wa taala duñ ko mooy lu dul ci réer nit ki day réere borom bi rek mooy ko waaye boo xamee kàttanam dëgg-dëgg nga xam sañ-sañam dëgg-dëgg nga xam li muy xam yépp ne loo def mu ngi ko xam nga xam yërmandem na mu tollu nga xam mbugalam na mu tollu nga dem mooy ko la na fekk xel mi matum waaye xel mi bu matee rek da ngay fëx jaamu borom bi subhanahu wa taala moo tax bari na fu ñu borom bi subhanahu wa taala di wax ne saari u jëkkalante leen ci lan la ñuy njëkkalante ila maxfira ngir ñu am njéggalu borom bi subhanahu wa taala bari na borom bi fu ñuy wax ne fa firru daw leen fu ñuy daw jëm ila allah jëm ca borom ba subhanahu wa taala kon yii nañu ci bàyyi xel bu baax a baax kon boo gisee nit ñi fëx jëm ci leneen yow na nga fëx jëm ci borom bi subhanahu wa taala boo gisee nit ñi di njëkkalante yeneeni mbir waaye yow na nga njëkkalante ngir am njëggalu borom bi subhanahu wa taala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam génn na dem xeexi moom ak al muhaajiruuna ak al ansaar ba xeex ba jeexee mu dajale màng bi yépp séddale ko ñeneen bàyyi al ansar séddale leen màng yi yépp ñu dal di dem mu bàyyi al ansar waa ansar ne ko waaw yonent bi lii moom lan la mu ne ko waaw ah lii de mooy ni ma doxalee xanaa bégu leen ñépp ànd ak alalu aduna dal di dem yéen ngeen dellu ak seeni yonent ñibi ñu ne ko radina ya rasulallah ne ko bég nañu ci séddale bi yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam looloo taxoon yonent bi salawatullahi wa salaamuhu alayhi mu ne almadina maanaa madinatul munawwara taaruju yaruju fiha al iman kama taaruju lhayyatu ila juhriha mu ne iman day yol ci biir madina ni jaan di yolee di dugg ci paxam moo taxoon mu noon ñu faman istataa minkum an yamuuta fi lmadinati falyafal képp koo xam ne man na attan na bee madina mu ne na ko def kon diine jooju mooy diine al islaami mu ne nag diine jooju mooy doxalinu ibrahima alayhi salaam waaye mooy lan mu ne njëlbeen ba mooy an taabud allaha muxlisan lahu diin mu ne na nga jaamu borom bi subhanahu wa taala te sellalal ko li ngay jaamu lu mu bari bari lu mu néew néew bu sellul borom bi ne awma ci soxla ndaxte mu ne ana agna shurakaai min ashirki man amila amalan asraka fiihi mai gayri taraktuhu wa shirka borom bi subhanahu wa taala mu ne kooma booleel maa ko ëppule ndaxte maa ko moomaale faf nga de yàllaak yàlla ne kooku maa ko ëppale gannaaw miskin la jéggal naa ko mu ne loo def rek boole ma man ak keneen man ma dal di ko jéggal ndax maa ko ëppale gannaaw maa ko ëppale boole nga ma maag moom yàlla ne waaye man jéggal naa la maa la ëppale ndaxte maa la moomaale yow ci sa bopp yàlla nag boo ko boole keneen mu jéggal kooka waaw kooka nag bés penc lum lay jox bés penc amul dara lum lay jox ndaxte borom bi subhanahu wa taala mu ne gis ngeen ba ngeenaay gane aduna ni ngeen ganee woon aduna noonu ngeen di dellu ci man furaada kama xalaqnaakum awwala marra mu ne da ngeen di ñëw nekk neen amoo tus amoo dara dekk yaramu kese dara nga amul noonu nga ganee woon aduna mu ne noonu ngay dellu see ci man kon kooku nag bu fekkee kooku nga yaakaar mu fey la lum lay jox faaqidu cheyin laa yuuti ku yorewul dara mun na koo joxe munul joxe te jàngoon nañu kat bés booba ku nekk dina daw keneen ndaxte am na àq yum ko waroon a jox ci aduna fekk àq yooyu joxo woon kon bu ko ko gis bu ko gisee rek dal di dal di daw ku lay daw nag nooy def mu fey la nooy def mu dimbale la yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi lii kay juróom ñii boo leen dawee te boo demee ba jaaxle ci sa bopp ñii ñoo lay wër boo sonne ci feebar sax dootuñ nangu keneen yegg si ñu dul ñii boo sonne ci feebar sax dootuñu nangu keneen yegg si ku dul ñii moo tax borom bi subhanahu wa taala dal di junj ñii ci aaya bi mu ne ñeneen ñi ci des nag jarul tudd ndaxte li la lënkale ak ñoom lu tuuti la donnante nekkul seen diggante day neex rek ngeen ànd waaye su naqaree rek kenn dootul gis keneen ka feeg yaa ngi man rek ngeen ànd waaye boo demee ba tële sa bopp ki nga gënoon a yaakaar mu bala lu dul ñii nga xam ne moom la ñi la wër nii nag ñoom mënuñ laa ba ndaxte buñ la bàyyee nu muy mel kon borom bi ne keroog ñooñu da nga leen di dal di daw ci beneen aaya mu ne itam ñi nga xam ne intérêt aduna moo leen lënkle ñoom itam dañ leen di daw lu intérêt ba mun a doon nag moo xam intérêt bi liggéey la yaxantu la mbokkoo la walla taalibeeg sëriñ la lu mu mun a doon mu ne keroog dañ lay dal di daw ndaxte id tabarra alladina tubiu min alladina tabaw mu ne keroog ba nga xam ne ñañu toppoon dañuy deñ ci toppe ya gis nga ki nga toppoon di ko defal di ko raamal di ko sukkal yaay ñëw mu dañ ci yow xawma la de dara lënkalañu sama yoon ci yow xamuma la te boo buggee yokk leneen mu daw bala fa borom bi subhanahu wa taala ne waaw est ce que xam ngeen li tax ah xamuñ lu tax de mu ne li li tax kay leer na wa taqattaat bihimul asbab sabab ya dagg na oto bu ñuy sol essence amatul tool bu ñuy bay amatul yére yu ñuy joxe amatul xaalis bu ñuy nangu amatul ndaxte dara nekku fa ku nekk ni ko yaayam juree woon la taxawee kon lu fay desati kon amul intérêt amul dara kon loolu moo tax mu deñ ci yow ndaxte du ngir yàllaa taxoon waaye fekkee ne ngir yàllaa taxoon keroog la gën a dëgër nag ndaxte borom bi subhanahu wa taala wax nañu ne bu ngeen di soppante na ngeen soppante ngir yàlla ndaxte al axillaau baaduhum li baadin adu aw al axillaau yawma idin baaduhum li baadin adu mu ne xaritooya keroog keroog ban bés peñ mu ne ñoom noonoo mooy nekk ci seen diggante ndax noonoo boobu day wéy waawaaw day wéy lu dul ci ñan illa al muttaqin lu dul ñi ragaloon yàlla te seen jàppante nekkoon ngir yàlla bii day wéy ba ñu feggoo ci biir aljanna yàlla nañu ko borom bi subhanahu wa taala defal loolu moo tax mu wax ñu fii ne diine jooju mooy na nga jaamu borom bi subhanahu wa taala sellalal ko lii nga xam ne mooy ni ñu koy jaamoo mooy doxalinam kon loolu mooy sharia loolu mooy sharia mooy ay loi yi nga xam ne dañ koo teg ndaxte sharia nekkul lu dul ni ngay dunde système de vie yonent bi bàyyilu la lenn loo xam ne da nga aajowoo ndollat amul bu dee musluwaay ba nga yeewoo ci sa lal ba nga dellu siwaat ci sa lal bàyyilu la benn seconde lu du loo gis am na looy wax loo dégg am na looy wax loo yëg am na looy wax ba mu jeex kon bidaa yi ngay